Moussa Thiaré ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si. Euh, yow yaa jiite fédération sénégalaise association ñi nga xam ne dañoo amee handicap. Uh-huh. voilà ay fan donc des ñu dem euh, voter ci élection présidentielle yi euh, wax ñu yéen loo leen di xaarandi ci ki nga xam ne moo war a doon juróom juróomeelu président de la république du Sénégal loo leen di xaar ci moom. waaw jërëjëf. ma gërëm la sant la sant say auditeurs yëpp li ñuy xaar ci candidat yi ak ci acteurs politiques yi de façon générale ñeenti mbir la bi ci njëkk mooy ñu fexe ba xabaar yi ñuy tas jamono jii ñëpp bën see jotandi ndax xabaar dafa am solo mhm. ñu ngi wax seeni programme moo xam ci télévision bi la te ñëpp bokk télé bi nag moo xam ci meeting yi la te ñëpp am droit xam li ñu wax lan la mais dafa fekk ne waylaago yi rawatina ñi nga xam ne du duñu dégg ñoom li ñuy wax ci rajo yeeg télé yeeg dégguñu ci dara te kenn deful pexe pour que ñoom ñu dégg moo tax mu fàttali lool beneen bi mooy ñu fexe ba li nga xamante ne fédération bi jot na ko am ñu tuddee ko ay acquis te mu bokk ci loi électorale bi ñu modifier ko ñu fexe ba jëmmal loolu te loolu ñu ngi ciy xaar ñi nga xam ne yëpp ñu ngi yëngatu ci wàllu élection yi mooy fexe ba nga xam ne way laago la bu demee wote ji bu fekkee fi muy wotee muy bureau ba accessibleul maanaam mënu fa àgg ñu mu mun a dem ci beneen bureau ci biir centre bi wote fa comme ni ko loi bi wax beneen bi mooy way laago yi ci wote yi du ñu rang dañuy ñëw rek dugg wote e beneen bi aussi bu ñu soxlaa jàppandal ku leen jàppale ñi ci biir bureau bi mën nañ ko def ñi ci biir centre bi mën nañ ko def rawatina takk der yi waaye itam nit ki maanaam mooy laago bi mën na ñëw ànd ak képp koo xam ne wóolu na ko pour mu gunge ko mhm. waaw sàmm aussi fàttali candidat yi ñu sàmm jàmm bi ndax jàmm ci la lépp xej te xam dañoo xamee suñu réew réewu jaam ndax ñun nag li tax ñuy wax ci jaamu ji nag ñun mënuñoo daw mënuñoo daw nag bu amee jee daanaka ñun dañuy vulnérable à deux cent pour cent loolu moo tax ñun ci jàmm rek la ñu xëj jàmm rek la ñuy wote te ñun ñooy aussi euh, famille boo xam ne souhaité wuñu yokk dañoo bëgg a wàññeeku donte nag jamono ji benn euh, organisation ci mbootaayu xeet yi ñu koy wax OMS nee na Sénégal téeméer boo jël fukk ak juróom yu tombal juróom yi ay waylaago la kon loolu xam nga ne bëri na daanaka ñetti million euh, nit la ci Sénégal Euh, Moussa ba jamono jii nii euh, bokk na ci seen am na ci ay doléance yi nga xam ne amagul saafara bokk na ci li nga xam ne euh, moo di loi d'orientation sociale waaye itam carte d'égalité des chances boo doon def bilan ci régime sortant bi fi ne jëmale ko ci wàlluma politique handicap au Sénégal loo ñuy wax. waaw li may wax mooy fàttali régime bi nga xam ne jóge na fi. wala boog moo ngi fiy waaj jóge ak kii bu topp def nañu ay jéego yu rëy jëm ci way laago waaye nag li des moo ëpp fuuf mhm. pour régime bi nga xamante mooy régime sortant bi ñi ngi fàttali ne ñoom ñoo jël décret yu njëkk yu jëmal loi d'orientation bi en 2012 ci fukk ak juróom Euh, euh, texte réglementaire yi nga xam ne loi d'orientation visé na ko ñoom jël nañ ci ñaari texte yoo xam ne defa visé ñetti disposition daanaka booy xool rek ñetti décret la beneen bi mooy boo jëlee li nga xam ne moom mooy carte d'égalité des chances euh, joxe nañ ci lu toll ni juróom ñaar fukki junni soixante dix mille donte nag woy laa goy Sénégal wax naa ko sànq. Mhm. ñu ngi leen di xayma ci ñetti millions. Mhm. te loolu organisation mondiale de la santé moo ko wax kon mhm. gis nga ne des na. fàttali aussi ne carte boobu nag li ko taxoon a jóg mooy benn xayma way laago yi ba xam ñaata lañu fan lañu nekk loolu yëpp pour mun a euh, euh, càmbar seen i ak ak seen yelleef waaye aussi taxaw si seen i bëgg-bëgg. beneen bi ñu note aussi te gouvernement bi passé def ko. mooy ne jot nañoo joxe lu toll ni daanaka ñaar fukk ak juróomi junni bourse sécurité familiale ci Woylaago lu tol ni ñaar fukk ak ñeenti junni également jotoon nañoo am ci couverture maladie universelle waaye comme ni ko waxe loolu kese doyul ma fàttali ne aussi tàbboon nañu ay waylaago ca conseil économique social et environnemental mm-hmm. tabb leen ca haut conseil les collectivités territoriales ak même présidence de la république yooyu itam loo xam ne jàpp nañ ko ci régime sortant bi comme ni ma ko waxee nag mu def lu bari ndax itam li ñu jàpp te gëm ko mooy bu ñu waxee laago dafa laal bépp pàcc boo xam ni mi ngi ci réew mi moo xam njàng la moo xam commerce la moo xam agriculture la moo xam xëy la moo xam wér-gu-yaram la et cetera et moo tax bañ ne bu ñu bëggee nag bàyyi xel way laagoon te jàpp ci seeni mbir il faut fa ñuy nasee di fa noccee way laago yi di fa teew wa ilaa kilifa ya fa nekk bu ñuy nal ay politique ak programme ñu mun ko boole ca njëlbeel ba bu ko defee bu ñu koy doxal dinañ gis way laago yi bu ñu koy càmbar dinañu gis way laago yi noonu rek lañ mën a jëlee en compte suñu besoin mm-hmm. waaye nag duut loo xam ne dangay ngay xëy tey rek ne nañu jàppale way laago yi ci lii wala nañ leen jàppale ci lee ay politique inclusive la ñu soxla ay budget inclusif la ñu soxla mhm. waa euh, ñi ngi ci euh, campagne électorale donte euh, ay fan doo des mu jeex période bi nga xam ne politique yi ci lañuy ñuy gën a jege askan wi ndax dañoo soxla seen kart ndax jàpp nga ni ñoom jël nañu en compte ñi nga xam ne dañoo amee laago am na de ay ñaar daanaka ñaar ba ñetti candidat yoo xam ne dégg naa ci seeni programme ñu wax ci woylaago waaye lu ci bëri wala boog lu ëpp ci candidat yi dégguma leen bu amee it nag yëguma ko looloo tax ma njort ne des na lu bari ci côté candidat yi ci wàllu woylaago yi dama fàttali ne ñun kat ah ñetti million individu lañu de ak suñuy njoboot kon poids électoral bu toll noonu gëwuma ne am na benn parti politique bu toll noonu Sénégal amul loolu moom mën naa ko wax hmm. leneen li mooy candidat yooyee di présenter seeni programme mais programme yooyu ñuy présenter ni koy defee am na ay nit ñoo xam ne du ñu mën a dégg amuñu benn xabaar ci li ñuy def loolu nag li ci gën a tee doy waar hmm. mooy ci télévision nationale bi nga xam ne ñu ñëpp ñoo ko bokk candidat yi di fa jaar di wax li ñu namm ci réew mi nit ñi nga xam ne du ñu dégg muy ñëw dégg dara ci loolu ñuy wax te loolu jàpp naa ne jaaduwul li gënoon a rafet mooy ñu jël ay disposition ba nga xam ne loolu nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk ñëpp mun caa yem ci wàllu xabaar beneen bi mooy jàpp naa ne ci programme yi il faut ñu bàyyi xel loi d'orientation sociale bi ak li mu lëmboo hmm. loolu moom comme ni ma ko waxee sànq ñun daanaka loi d'orientation bi ak li mu wul mooy li ñuy gën a seet ci programme bi te loolu dafa laal ñëpp ma jukki ci quelques pàcc rek bokk na ci carte d'égalité des chances ñu fexe ba ñëpp am ko ba paju paju bi yomb mm-hmm. dem beeg dikk bi gën a yomb njàng mi nekk njàng moo xam ne du boodi kenn xëy mi nekk xëy moo xam ne du boodi kenn ñun loolu lañ wax rawatina nag ñu rax ci ñu rax ci doole aussi di nga xam ne moom la ñu duppee haute autorité te depuis ba ñu waxee loi ba léegi deux mille dix ban promulgué loi ba léegi ñu ngi ciy daw ba léegi nii amuñ ci benn loo xam ni daanaka e, jeexital la. Mm-hmm. te autorité boobu lu ama am solo la. d'accord. ak fonds d'appui aussi mm-hmm. lu am solo la. waaw ci say kàddu cinq bu ñu sukkandikoo ci OMS ci weeru mars atum deux mille vingt trois e, ñi amee laago fii ci Sénégal toll na seize virgule cinq e, pour cent mu mel ni lim bi dafa yokku. waaw mën nañ ko wax ndax xayma bu mujj bi te OMS boobu defoon ko dafa ne woon téeméer boo jël ci Sénégal fukk juróom yu tombal juróom dañu amee laago waaye booy xool estimation organisation mondiale de la santé boobu mhm. da ngay gis ne dafa différence bi dafa bëri lool ak li nga xam ni moom la ANSD te mooy kuréel boobu di toppatoo wala boog di saytu. Mm-hmm. waaye xayma nit ak seen dundin daanaka li mu wax. Mm-hmm. ndax ñoom en 2013 dañ ne woon ñun 5 virgule 9 pour cent de la population. donte demoon nañ ba reconnaître ne nag dañoo def ay erreur li ñu gën a jaaxal nag mooy 2023 bi ñu def recensement bi boolewuñu ci. Mm-hmm. te loolu xam nga lu mu teg. mooy politique yi di ñëw ñun duñ ci bokk parce que boo xamul nit ki ni mu toll xamuloo fi mu nekk munoo xam ay ay ay bëgg te boo politique buñ fiy teg ci réew mi dañuy basé wu ci ay données statistiques pour mun a def li ñu tuddee allocation de ressources. dëgg la waaw te loolu ñun gis nañ ni amul mbii Hmm. mu jaaxal ñu lool na euh, jamono ji euh, urgence euh, de l'heure buñ ko mënee wax noonu lan la ci seeni doléance lan moo gën a jàmp urgence de l'heure bi bu ci njëkk mooy lépp lu ñuy def ci réew mi nag ñu bàyyi ñu ci xel ak lu mën a doon lépp lu mën a doon li gën a taxaw ñi te jàmp di mooy campagne bii candidat yi ñu fexe ba am ay interprète en langue des signes ñi nga xam ne duñu dégg mën di dégg li ñuy wax parce que ñoomi dañoo bokk ñu war a tànn. Mm-hmm. leneen li mooy nañu taxaw ci li nga xam ne moom la code électoral bi wax pour yombalal woylaago bi woteem ñu jëmal ko te jëfee ko beneen bi mooy ñu sàmmonteeg jàmm ji ci réew mi ndax jàmm ci leen lépp xej mm-hmm. dégg nga rawatina nag ñu ñi nga xam ne nag mënuñoo daw mënuñoo dem fenn bu bu jee éclaté ñun ñoo gën a exposé. Mhm. moo tax ñu bàyyi xel ci loolu. dëgg la. waaw loolu mooy li nga xam ne gannaaw application loi d'orientation sociale bi ci ay disposition bi yëpp li nga xam ne jàpp nañ ne ay urgence la moment bi ñu toll nii ak li nga xam ne moom mooy euh, président bees bi di falu dama fàttali ne nag bu ñu toogee diir te dégguñu dara bu bu élection yi jeexee ñu organiser mobilisation sociale def ni ñëpp di def nag woote place de l'obélisque mhm. waaw ndax ñun itam am nañu mbooloo na te dañu war a bàyyi xel. la ndax am nañu suñu àq ak suñu yelleef dañ ko war a toppatoo. Mhm. Euh, Moussa Thiaré Rewmi FM mu ngi lay sant di la gërëm. maa ngi leen di gërëm di leen sant yéen itam. voilà ci fàttali rek yaa jiite fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées. de personnes handicapées.